xam nga moom boo moom daan ko day bëgg laale waat yow loolu bu mu koy yàqante day am incha allah. man naka nga gisee plaisir ah nan nga gisee sarax. waaw sama rakk ji moom macha allah pare na di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm may ko xel bu mu bëree bés boobu noonu te yàlla dina ko may dina daan jël bu bu na xel. lak xam nañ nga ci làmb gis nga ñaari booy naka la ñuy bëree euh, Sa moom combat dafay faral di gaaw euh, alors que booy ñaar dafay bëri ay calcul ci combat lan nga yaakaar ni combat bi noonu la nar a demee. nu muy demee ah yàggatul xam mun ma wax ci kanam ci ginnaaw yàlla waaw man lépp lu ma wax rek mooy li ma xam rek laa gis moom mooy Sa Thiès pare na te bés ba incha allah di xam ne pare na loolu rek la waaw. yaakaar nga ni dina gaaw. ça dépend booy ñaar rek bu bëggee mu gaaw ñu gaawal ko gaaw bu gaaw pare nañ ci lépp ndax ki ma gis nii ci kàttanu yàlla pare na dañuy ñaan yàlla yàlla ñu ñaan ñun dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may ndam Sa Thiès ci barke Seydina Mohamed. Boy Niang nee na dimanche dañuy lay wane njàmbaaram ci làmb. ah seen c'est normal c'est normal mu wax loolu parce que tey li dal xelam la wax mais ñun ñun suñu bopp ñun xam nañ Sa bu baax xam nañ lu mu mëne ak lu mu mënewul kon donc Sa Thiès na ko yàlla jàppale dooleel ko bés boobu noonu. sànq ñun dégg ngeen yéen ñaar ngeen def contact nga doole ci moom nga ko demal ah, ah. man mii nga laaleeg moom ah. xam naa ne pare na xam naa ko bu baax mais yàlla baax na yàlla ñu yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed merci